asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di delsi ak yenn ci émission bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax l'émission des émissions ñu ci waxtaane li nga xam ni xew na ci réew mi muy xew-xew yi nga xamante ni bii it xew na ci pénc mi ñu ciy joxe sunu xalaat ci àjjuma ju jot ci fi nga xamante ni fii moom la ñuy tuddee solution info ñuy nuyu sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi koy safoo nekk ci biir réew ak bitim réew fuñ ci mën a ne ñi ngi am ci ñëpp mbégte ak kontaante mbokk yi. tey ñu war a waxtaane ay point yoo xamante ni bi jàpp nañ ñi point yu am solo la bi ci njëkk ñu war a waxtaane ki nga xamante ni moom lañuy wax Karim Xurum Xaq ak ki nga xam ni moom lañuy wax Cheikh Oumar jaañ mi nga xam ni du ma ne jàpp nañ leen waaye dama naan jàppati nañ leen ci ginnaaw bi nga xamante ni bi xam nañ li tax ñu téye Cheikh Oumar Diagne waaye Karim man jàpp naa ne xamuguma man ba tey li tax ñu téye ko waaye nag danañ joxe sunu gis ak sunuy xalaat ci li nga xam ne mooy mbir yi dinañ waxtaanee tamit ki nga xam ni moom lañuy ñuy wax Clédor Sène Clédor mi nga xamante ni ba Cheikh Oumar jaañ nekkee ca ndaje ma moom Clédor ma nga fa woon moom ak Dame ña nga woon ca fa nga xamante ni mooy ndaje ma ña nga fa woon ci mbir moom euh, topp nga wàññil ma son bi tuuti parce que mi ngi may perturber di wax ni ka nga xamante ni kii moom la ñuy wax Clédor ma nga fa woon waaye dinañ waxtaanee tamit bis bi nga xamante ni bi ñu ngi ko dëgg dëgmal nekk ci weeru koor muy bis boo xamante ni bi jur na njàqare gu rëy ci réew mi ginnaaw bi nga xamante ni bi mooy la 16 li xewoon nit ñi jàpp ni le 30 naka la war a demee ak tamit ñu nekk ci weeru koor kon lii mooy li nga xamante ni bi mooy nekk tey sunuy waxtaan <clears throat> mbokk yi euh, dañuy wax ci ki nga xamante ni ki moom lay wax Cheikh Oumar jaañ Cheikh Oumar Diagne ak ki nga xamante ni moom lañuy wax Karim Xurum Xaq <coughs> ñoom ñaar ñu bokkoon bés boo xamante ni bi génnoon nañ ko ci kaso bi mu mel ni boolewaat nañ leen delloowaat leen ci kaso bi man nag ba tey damay poser question damay wax ni Cheikh Oumar Diagne peut-être dégg naa ko mu daal di expliquer daal di wax wax boo xamante ni bii tamit ci sama dégg-dégg jàpp naa ni wax la boo xamante ni bii euh, li mu wax waxut lenn loo xamante ni bii lu jëm ci wàllu violence la walla leneen loo xamante ni bii kii mais maanaam am na ay gis-gis yu wuute ak gis-gis yi nga xamante ni bii moom la ñu bari gisee. parce que Cheikh Oumar taxaw nañ ñoom di wax wax joo xamante ni bii wax la joo xamante ni pour wax lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu démocratie nu mu war a mën a ñoŋee ci sunum réew nu mu mën a saxee ci sunum réew wane ni ñoom li ñuy def du lenn lu dul ay débat d'idées te it réew mi dafa war a tegu ci li nga xam ni moom la ñuy tuddee siraatal mustaqim maanaam nit ñi jaar ci li nga xamante ni bii mooy yoon wax na ko ni nga xamante ni bi noonu la ko waxee après dégg nañ ni woo nañ ko ginnaaw gi ma seetaan Karim ñu ne woo nañ leen mën nag damay wax ni euh, Cheikh Oumar Diagne ak Karim Xurum Xaq dañu war a xam ni seen nekk ci bitti moo gën téeméeri yoon seen nekk ci biir ginnaaw am na ñoo xamante ni tëj nañ leen fi c'est parce que dañoo ree maanaam ñu jàpp leen am ñoo xamante ni bi kafe nañ fi ay journal yoo xamante ni bi journal yi bind nañ di caricaturer ñu revide presque ñu téye leen situation bu mel noonu yow bu fekkante ni bi xeexkat nga te ci bitti nga ëppee njariñ ci biir li gën mooy nga moytu lu baree bari loo xamante ni bi dana may prétexte ñi nga xamante ni dégluwuñu lu dul seet luy nuru wax ju ëpp ba ñu ne la kaay wuyu fii donc defe naa ni li nga xamante ni bi mooy li gën mooy nit ki bu fekkente ni bi dafa am lu muy bëgg nga di ko def ngir mu di la téye téye bi même bu dee benn weer wala mu nekk ñaari weer wala mu nekk une semaine pertement la parce que ci bitti nga ëppee njariñ ci biir kon defe naa ni war nañu éviter di wax yenn wax yi l'autre jour maa ngi dégg Ousmane ko di ko wax ñi nga xamante ni bi ñooy ay ñoñam ne leen moytu leen yenn yi ay yenn poste yi moytu leen yenn kàddu yi nga xamante ni bi yéen a ngi koy yëkkati nit ñi di ci jaaree di leen téye di wut prétexte que ni dafa wax kat lii moo tax ñu téye ko il faut éviter yu mel noonu rawatina yéen yi nga xamante ni bi da ngay nekk ca kanamu li nga xamante ni bi moom mooy combat bi li gën mooy ngeen mesurer bu baax a baax li ngeen di wax parce que seen nekk ci bitti moo ëpp solo fuuf ngeen nekk ci biir parce que bu ñu la teewee ci biir tée benn trois mois am na lu bari loo xamante boo ñëwee da ngay nekkaat ci beneen commencement éternel recommencement ngay nekk maanaam da ngay dem euh, ginnaaw bi nga demee ba pare ñu tée la fekk yaa ngi woon ci benn lancé yaa ngi woon ci yenn kii ak communication bi ngeen di def dafa am solo lool ci li nga xamante ni bii mooy fi réew mi toll réew mi dafa soxla communication bi nga xamante ni bii moom ngeen di def mais ci kaw communication bi ginnaaw à chaque fois ñi ngi leen di woo lii nga fi wax lii nga fi kii nga formuler waat jéem a xool ni nga xamante ni noonu ngay jàllalee sa message sans pour autant que nga xamante bi kenn dina la mën a wax ne ah kaay fii c'est parce que ni nga waxee jaaduwut li nga wax fii da ngaa woote fii lii et cetera et cetera loolu yëpp éviter ko loolu moo doon pour man li nga xamante ni bii mooy li en tout cas man damay faral di wax ni en tout cas nit lañ yoo xamante ni respect bu rëy laa am ci ñoom lu tax c'est parce que dama xam ni li nga xam ni moom lañ leen di teewee du seeni njariñu bopp mais seen bëgg réew mi seen patriotisme seen gëm li nga xam ni mooy réew mi gëm seen idée tey it lànk li nga xam ni mooy nooteel loolu mooy li nga xamante ni bi tey lu leen di dal loolu mooy li ko indi kon big respect à Cheikh Oumar Diagne et Karim Xurum Xaq mais nag di wax ak képp koo xamante ni kii amal nga njariñ réew mi ci biti nga xamante ni bii say discours nit ñaa ngi koy déglu di la bàyyi xel donc nga jëfee ndigal loolu nga xamante ni bi Ousmane Sonko wax na leen ko xool leen bu baax ni nga di waxee ak tamit ci post Facebook yeeg et cetera éviter yenn yi loolu dina nekk loo xamante ni bi lu am solo la mbokk yi ak xarit yi dañuy ñëw ci ki nga xamante ni kii moom lañuy wax Clédor Clédor moom dañu ko bàyyi mu libre maanaam kenn teewu ko et pourtant Clédor wax na li nga xamante ni bii mooy li ki nga xam ni moom la ñuy wax Cheikh Oumar Diagne wax nekkul ni lu ma dégg rekk la mu wax ko dégg naa it dàmbooj répété même parole yi nga xamante ni bi mooy li Cheikh Oumar jaañ wax dàmbooj wax ni man ak Cheikh Oumar jaañ ak Clédor ñoo nekkoon ci bërëb ba ñun ñoo yëkkati kàddu yi nga xam ni moom lañ yëkkati daal dee woote li nga xamante ni bii moom la wax résistance dàmbóoj wax ko Clédor wax ko Cheikh Oumar Diagne wax ko ñu bàyyi Dàmbooj bàyyi ki nga xam ni mooy Clédor mais te ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax seexu Oumar Diagne loolu nag bu amee ñu jékki-jékki gis ci internet bi ñu ci bari di laaj di poser ay questions. question yi may dégg ñu koy posé ñu ci bari sax jëmul ci ki nga xamante ni ki moom la ñuy wax euh, Dame Mbodj mais dafa jëm ci Clédor ñuy wax ne waa Clédor li muy wax lu tax jàppuñu ko lu tax Clédor boobu ba nëgë ni muy wëndeelu pourtant Clédor dañ ko war a jàpp lu tax kenn jàpp ko maanaam wax yooyu nekk loo xamante ni wax yu bëri la ma daa dee déglu ki nga xam ne mooy Clédor mais Clédor wax wax joo xamante ne bi wax ju am solo la parce que gis nga àddina euh, dafa am solo Clédor wax na ni et pour nee na moom li nga xam ni moom la Cheikh Oumar jaañ wax loolu la wax te dàmbooj loolu la wax moom Clédor mooy wax mu ne lu tax ñu bàyyi ma fi jàpp ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Cheikh Oumar jaañ mu ne te nit ñi ñi ngi wër di wax naan lu tax jàppuñu Clédor mais Clédor wax wax bu am solo mu ne waaw man damaa wax lu war a tax ñu di ma jàpp maanaam nit ñi au lieu ñu def focus ne mais Cheikh Oumar Diagne kenn waru ko jàpp ci li mu wax mais nit ñi defatuñ ci loolu focus mais ñi ngi naan lu tax jàppuñu Clédor mel ni dañoo wax loo xamante ni bii jar na kon kon dañ mel ni cautionné nañ nangu nañ jàpp bi nga xamante ni bii jàpp nañ ko Cheikh Oumar Diagne parce que le bu fee jàpp nañ kii bàyyi kii rek nit ñi ne lu tax jàppuñu ki nga xamante ni kii mooy Clédor Clédor daal ne mais man lan laa def ba war a tax ñu di ma jàpp parce que li ñu woote dafa nekk ci sunu constitution muy droit de résister loolu nekk ci li nga xamante ni bi mooy constitution bi loolu lañ taxaw wax ko loolu kañ lan lañ ma ci war a mën a jàppee nit ñi dañu war a def focus daal ne eh Cheikh Oumar Diagne mii ñu tee li ñu ko téewee kenn waru ko téye c'est parce que lii dafa nekk ci li nga xam ne mooy sunu constitution muy droit de résister loolu kon kenn waru koo jàpp foofu lañ waroon a def focus mais defuñu ci loolu focus mais nit ñi. am ñenn ñoo xam ni question yi ñuy posé dafa am ñeneen ñoo xam dañ lay déggloo leneen Clédor <laughs> mii de ay mbiram leerut est-ce que du moo gaa yi ñoo def nii ak ñoo def naa bu ko defee pour les autres commencer am ay doute ci ki nga xamante ni kii mooy Clédor parce que nit ñi dañ lay interpréter ci kii naan la waaw mais Clédor moom li muy wax yépp moom te kenn du ko téye nit ñi dañ la ciy interpréter di wax et pourtant ndax. li Clédor di wax dañu war a wax kañ ne li Clédor di wax de ah li Clédor wax garaaw na de sénégalais yi def focus ci li Clédor di wax ne fii am na ak luubal lii def nañ ko lii def nañ ko waaye léegi nit ñi au lieu ñu xool li Clédor di wax njariñ li mu xamante ni moom la doon mais dañu jël wax ji teg fale naan waaw kii dañ koo war a jàpp moom <laughs> kii war nañ koo téye de kii war nañ koo jàpp de parce kii li mu wax lu garaaw la li muy wax lu garaaw dafa jëm ci ay nit ñoo xam ni def nañ lu garaaw nit ñooñu la la nit ñi war a wax ne waa mais ñii lu nit ñi di xaar pour ñu dem jàpp ji ñooñu Clédor di dénoncé foofu la nit ñi war a waxee mais pas ki nga xam ni mi ngi toog di dénoncé ne am na ay preuve te pare na pour ñu woo ko léegi sénégalais yi ne kii moom kii li muy wax dafa garaaw kii dañ ko war a jàpp xaw ma ndax yéen a ngi comprendre mbir yi ni nga xamante ni bii noonu la demee parce que dootuñu nekkati pro di waxati ci problème bi mais ki ñuy wax problème bi am moom lañ ñëwaat nañ leen ko téye mais buñ ko téye kan mooy waxati problème bi léegi nag bu ñëpp d'accord ni Clédor dañ ko war a téye c'est vrai bu boobaa nag nit ñi ñoom buñ demee jàpp Clédor ñu ne eh, xamoon nañ ko xamoon nañ ne dinañ ko jàpp parce sa waay day wax wax yu garaaw. mais ki jëf-jëf ju garaaw nag ba tax Clédor wax wax ji nga ne wax ji dafa garaaw ana ki ko jëf ki ko jëf moo gën a garaaw loolu mooy li nga xamante ni bii mu foofu la war a bàyyi xel parce que tey journaliste yi nga xamante ni bi tey ñi ngi liggéey di creuser di génne ay xibaar yu garaaw ay xibaar yoo xamante ni bi tey ay scandale la journaliste yooyu dem nañ ba bu ñu ko génnee dañ daan hé sa waaye da léegi gars yi teg ko loxo sa waay de léegi ñu war koo teg loxo nag parce que sa waay yu garaaw lay wax sa ay xamul boppam de na bàyyi yii muy wax na bàyyi yii muy wax et pourtant bu fekkee ne bàyyi na li muy wax it gaa yaa ngi jëf ci suuf parce que buñ jëfutoon du ko wax loolu mooy li nga xamante ni bii mooy kii bërki Dembo Ndiaye Bougane Gueye dan dal dal na ko mu génne ay dossier yoo xamante ni bii mi ngi wax ci Mansour Faye génne dossier yi ñu tànqam lu ko wuyu ko Bougane génne dossier yi di ci wax gars yi waaye nag dafa bëgg koo yóbbu ci yoon xam nga léegi dafa mel ni euh, euh, ki nga xam ni moom moom mooy jëf kooku moom xalaatatut yóbbu ko ci yoon waaye ki koy wax kooku daal moom la ñu war a yóbbu ci yoon loolu nag dafa nekk loo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla euh, bu ñu commencé dugg foofu rek mooy nangu nañ nangu nañ ñu teg ñu lépp loo xamante ni bii ñu ñu koy teg nangu nañ ko maanaam bàyyeeku nañ reconnaître nañ ne bon lii ñii di defkat ma gis lii mu nekk lu ñaaw lool nga xamante ni bi mbirum réew mi la waaye man mii nag wax dëgg fa yàlla bu ma ko waxee man maa def lu ñaaw waaye ki nga xam ne moo koy def moom defut lu ñaaw loolu mooy li nga xam ni mooy problème réew mi jamono jiñ toll nii donc ñuy delluwaat encore une fois di wax ni nañuy def focus bu baax a baax ci li nga xamante ni bii mooy problème yi dëgg-dëgg te bañ di topp leneen li nga xam ni doonut problème mais ñi ñuy wan ñi def problème ñu li leen wax ñooñu bu kenn di taxawati di wax naan kii lu tax jàppuñu ko ba nëgëni parce que kii lu tax jàppuñu ko ba nëgëni bu wéyee rek bu commencé daw rek day permettre gars yi bu ñu koy jàpp du am benn problème parce que nit ñi nangu nañ ñi kii dañ koo war a jàpp et pourtant kooku dañ koo war a protéger gën koo aar gën a fésal ay mbiram fexe ñi nga xam ni ñoom lay dénoncer ñooñu nuñ leen jàppee loolu mooy li ëpp solo mbokk yi ak xarit yi dañuy ñëw dem ci li nga xamante ni bii mooy troisième point bi nga xamante ni bii mooy. procès bi nga xam ni mooy diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko tey dama xëy dégg ci presse bi ñu bind ni dañu sitee ne département américain cité aussi tamit ay kii yoo xamante ni bi maanaam ñu ci mel ni ñoom Aliou euh, jóg nañ ñu ne di ci dox jàmm pour procès boobu mu bañ a tee am bi nga xamante ni bi wax nañ loolu mu mel ni tey am na ñu bind weddi ni loolu amul amul kenn koo xamante ni kii dox nga ci pour lijjanti pour mbir mi ñu teg ko ci suuf euh, xam nga procès Mame ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko euh, Mame Mbaye Niang ak usmaan Sonko je ni li xew bi passé ci la 16 nekk na loo xamante ni bi képp ku yewoo ci senegal defe naa ni neexu la euh, nit ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ay sénégalais yoo xamante ni bi liggéey nañ am li am ñu xëy taalal leen ko Dakar dem dikk lim ci yàqule Sonatel bi nga xamante ni bi tamit la liggéey ci ay sénégalais yooyu lim ci yàqule ay station yàqule ci ak i Auchan yoo xamante ni bi yàqule nañ ci li nga xamante ni bi moom lañuy wax procès Mame Mbaye mu ne day setal deram setal sa der boo xam ni yow ci sa jëmmi bopp taxaw nga wax ni kat wéral li nga xam ni mooy rapport bi ci ay video yoo xam ni nga taxaw ne rapport am na rapport am na waaye xam nga ni boo demee ci procès bi leer na la ni ki ngay laaj rapport du la génne rapport parce que bu la ko génnelee ñu yóbbu ko ne ko recel document administratif et cetera parce que këyit bi nga yor waroo ko yor léegi nag nga bëgg ko wékk foofu nga xam ni quelque que soit alpha daan daf cee war a am te li nga ci jublu du lenn lu dul rek jouer li nga xam ni moom la ñuy wax kamikaze pour fas yéene fexe ñu éliminer benn candidat loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir mi loolu képp la ndax nag Mame Mbaye man tey euh, moom laay waxal parce que loo xam ni yow waxal nga ko sa bopp ne am na ndax li xew la saise keroog sénégalais yi génn li xew-xew boo tëddee carrément est-ce que war ngaa nelaw ci li nga xamante ni bii xew na ci ne da ngay setal sa der ne maa ngi setal sama der mais ci kaw ngay setal sa der Sénégal mën cee yàqu est-ce que loolu ku bëgg sa réew lu doy ni tarafatal ay ni war nga koo mën a def dañu jëm ci la trent ñuy ñaan yegg ci ci jàmm mu jàll ci jàmm ak salaam waaye am na ay yoo xamante ni bii bu fekkente ni mi ngi continuer di poser mën na indi loo xamante ni du gënal kenn ci réew mi parce que man damay wax ni réew mi ñëpp sonn koo xam ni boo ko woowee réew mi tagatémbe daanaka kenn dootul liggéey kenn du ñemee génn élèves yi duñu ñu jàngi commerçant yi duñu ñu jaay loolu yëpp ndax lan kenn ku ne woon moom dangu na wër ci télé yi ne rapport am na mais nanguwul kii wax ko ne ko rapport sàngam bii kat moo la def nii moo la kepp fii mu bañal ko kenn kese ka ca bind livre yoonam nekku ci faale wu ko plainte ko yóbbu ko ci yoon te livre boobu je pense que ni moom la ñu waroon a bind livre kooku la ñu waroon a attaqué waaye kooku soxlawut réew mi soxlawut pour nekk président du candidat boo demee mu génne li nga xamante ni bii moom la amee kooku yitteelu la ak li Sénégal mën a yàqule lépp nag jàpp naa ni wax dëgg fa yàlla. su fekkente ni bi réew mi bëgg nga ko lu doy ni tarafatal ay ni ak lu mu tuuti tuuti war na la mën a jaral nga daade dee génn ci lii nga xam ni moom la ne parce que lii nga nekk du loo xamante ni bii man pour man lu baax la man damay faral di wax ne sax est-ce que Mame bu dee am na ñuy def médiation parce que réew mi tamit jamono jiñ toll nii doy na waar parce que bu fekkente ni bi dem nañ ba réew mi actuellement amul kenn koo xamante ni kii war nga mën a dox ci situation boo xam ne mi ngi ñu ngi ci dëgmal di ca dem mais amul kenn koo xam ni mën na jóg dox ci pour lee ñuy seen di dox jëm ca duñ ca yegg tàkk-tàkk bee ñuy seen nga xam ni am ñu ñu baare digganteeg tàkk-tàkk googu nga xam ni moom lañ jëm mu mel ni réew mi loolu amu fi mais ça c'est grave kon réew mi kon fi mu toll nii graaw na trop nit ñi bu ñuy wax kilifa yi nañ wax c'est parce que dañu am ci ñoom yaakaar am ci ñoom yaakaar yaakaar ni même bu fekkente ni bi wax nañ te ka ñuy waxal jëfewut la ñuy wax ñu génn publiquement yëkkati kàddu ne wax naag diw waaye la ma wax ak moom defu ko sénégalais yépp comprendre dinañ xam ni wax ngeen mais fi ñu jëm du fu baax ndax lan deru maam mbay ñaa mu mu ñu setal ci kaw ñu ne ñu ngi setal deram moom li muy wax ne amul moom ci boppam taxaw na ne am na kooku nu mu mën setal deram naka la mën a setal deram en tout cas di wax sénégalais yi ak sénégalaises yëpp di leen wax ne leen nañu delloo si xel yi di wax ñi nga xam ni ñoo nekk ci nguur nañu delloo si xel yi nguur gi nekkutoon ci seeni loxo daa jóge ci loxo ñëw ci seeni loxo te ba mu nekkee ci yeneeni loxo réew mi ñoo xeex yëkkati ko ci loxo yooyu teg ko ci loxo président de la république président na xam ni réew mi ni ko tegoon ci loxoom saa su jotee danañ ko yëkkati delloo ko ci i loxo kon jarul lenn di fi ñaaw jarul lenn di fi ñaaw ngi nii tey génn gañe nañ ko génn na réew mi saa yu ko neexee ñëw doxantu ay mbokkam ak xaritam di ko dem di ziyaar yi loolu président mën nga ko am mën nga am loolu ngal la bul déglu ñii nga xamante ni bi seen njariñi bopp képp a leen ñor leneen lu xew dañuy daw te bu boobaa lépp day delluwaat ci sa responsabilité parce que yow yaay ki nga xamante ni tey sunu borom yow la teg jàmmi réew mi mi ngi ci say loxo soo bëggee tey jàmm am ci réew mi dara dootul xew kon nag ñi ngi lay ñaan nga fexe ba jàmm jooju nga xamante ni bi moom lañu bëgg ci réew mi nga defal ñu ko loolu rekk lañ lay ñaan lii ngay inauguré lépp baax na waaye balaa ñuy gis njariñ li dëkk mooy nga fexe ba réew mi nga delloo ñu ko ci jàmm ak salaam bu boobaa lépp loo fi def sénégalais yi dinañ taxaw waxal la ko parce que ku la ko waxalul dina ko gis kon li ñu lay ñaan mooy jàmm ji nga xam ni sunu boroom mi ngi ko teg ci say loxo jàmm jooju nga dimbali ñu ci mbokk yi ak xarit yi ñi ngi am mbégte ak kontaante di rafetlu ànd bi nga xamante ne bii ñi ngi ko doon ànd ak yéen ci l'émission des émissions di kontaan ci ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci technique bi muy Abdou Top ak Ablaye jàlloo ak Fallou di gërëm aussi tamit directeur des programme muy son yi bu Diop. ñuy joxante di daje ajjuma ak jàmm ci l'émission des émissions incha allah jërë ngeen jëf